Josette Kali. Nous sommes vendredi le 7 mai 2021, il est 0 heure l'heure du bulletin d'information. Dans, la, les régions de Dakar, ties et Louga, 12,39% des légumes démontrent la forte présence de salmonelle, des genres hautement contagieux pouvant causer des conséquences d'ordre sanitaire. C'est ce qui ressort d'une étude sur la prévalence des salmonelles dans les légumes vendus dans certains marchés. Le Codex Alimentarius et le service d'hygiène qui mettent en cause les mauvaises pratiques d'hygiène recommandent d'étendre la surveillance marie Ndiaye. Sur 871 échantillons analysés, 108 sont revenus positifs, soit 12,35% des légumes prélevés ont montré la présence de salmonelle. Il a été noté une forte prévalence des germes au niveau des persils, des salades, des nanas et des carottes. Maimouna Souka, ingénieur de génie sanitaire, chef de diffusion études planification au niveau du service national d'hygiène. a ciblé les légumes qu'on utilise souvent en crudité, qui ne sont pas Parce que quand euh, le risque microbiologique est là, si l'aliment est cuit et bien cuit, hein, ce risque est enrayé. Mais quand l'aliment n'est pas bien lavé, par exemple, et n'est pas cuit, le risque demeure. C'est pourquoi on a ciblé ces genres euh, de, de, légumes. Ce qui, selon l'étude, s'explique par les mauvaises pratiques d'hygiène dans les marchés, mais aussi dans les maisons. Au niveau aussi euh, de certaines pratiques, euh, dans la zone des Niailles, on a constaté que certains maraîchers, hein, on ne dit pas tous, mais certains utilisent les eaux usées pour euh, arroser. Hein. Ils l'utilisent comme amendement. Ils utilisent aussi les fientes de volaille comme amendement pour enrichir le sol, etc. Et tout cela pourrait exposer les légumes à des risques de contamination. Des risques de contamination qui peuvent aller jusqu'à la survenue de la fièvre typhoïde, d'où l'importance de veiller à la sécurité sanitaire des aliments, selon Amadou Diouf, professeur de toxicologie, président du Codex Alimentarius. Tous les germes sont potentiellement dangereux. Vous savez, les fièvres typhoïdes, pour lesquelles il y a des mesures qui sont... C'est Euh, du fait qu'il y a des, possi des, possibilités de contamination jusqu'à jusqu une fièvre qui peut, qui peut, en ce moment, il faut prendre des précautions. Et c'est pour cela que nous a mis ce plan en exécution pour que la, capacité ou la mission, en tout cas, de surveiller ce que nous consommons, L'étude a été menée dans le cadre d'un programme financé par le Luxembourg et appuyé par la FAO au niveau du Codex Alimentarius au Sénégal. Marie-Rosalie Ndiaye marche des étudiants de l'université virtuelle de Mbour. Les apprenants ont battu le macadam pour s'insurger contre les mauvaises conditions d'études dans l'ENO de Mbour, le manque d'outils pédagogiques et le retard du démarrage des cours. Ces marcheurs ont exigé le respect du calendrier académique universitaire, la réception sans condition des outils de travail avant de menacer de paralyser le système de l'université virtuelle du Sénégal si les autorités tarde à réagir. Écoutons Michel Malik John, porte-parole des étudiants de l'université virtuelle Eno de Mbourg, au micro de Moustapha Sall. Dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles les étudiants de l'UVS sont en train de vivre. C'est dans cette logique que nous avons organisé cette marche, toujours dans le cadre, dans le cadre de revendiquer ce que nous devons de que vous l'avez entendu tout à l'heure, nous les de l'UVS, nous sommes fatigués. et je peux dire que nous avons assez respectés, qui ne sont pas été Dans le mémorandum, nous avons eu à lister par exemple la réception sans aucune autre condition des outils de travail de la promotion 8. Vous savez que la promotion c'est la dernière promotion de l'UVS. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas eu à commencer leur cours de spécialité. Ils ont, juste, fait des cours d'initiative à l'informatique, c'est-à-dire les cours d'initiative leadership, informatique, développement personnel. Mais leurs cours de spécialité, ils n'arrivent toujours pas à le faire. leur journée de travail, ce qui est anormal. Les étudiants n'ont plus la patience. Certains d'entre eux sont même découragés parce qu'ils ils doivent recevoir leur journée de travail pour commencer leur cours. Donc nous avons réclamé ça, la réception sans aucune condition des études de travail, mais également nous demandons le démarrage, des cours de spécialisation de la promotion 8. Dans le mémorandum aussi, on a eu à écrire, euh, on a eu à la réception définitive des énons à l'UVS, qu'on Revue annuelle de l'éducation via le programme de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation et de la formation. À Sédhiou, les performances de l'académie sont jugées satisfaisantes même si des contraintes et défis per persistent toujours. C'est ce qui est ressorti d'un CRD organisé hier jeudi sur le rapport bilan du dernier exercice de l'année scolaire. Correspondance depuis Sédhiou, Moussa Dramé. Cette revue est un rapport bilan de la gestion de l'inspection d'académie de Sédhiou à travers le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence, de l'éducation et de la formation paquet. Papa Gourguindiaï, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, revient sur les performances. Si on en juge le bilan, globalement, on peut dire qu'il est satisfaisant. Se réjouir quand même de la forte progression au niveau de l'accès aux services éducatifs, belle performance au niveau des différents examens scolaires, à savoir le CFE, le BFM, même le BAC. Des contraintes et défis persistent toujours, nonobstant les efforts en cours, a indiqué l'inspecteur d'académie de Sidiou. Il reste du, du, chemin à faire. L'épineuse question des classes euh, préscolaires communautaires qui malheureusement sont menacées quand même d'arrêt, de l'amélioration de l'environnement scolaire de nos établissements d'une manière générale, avec le nombre important d'abri provisoire. Et aussi, on a pu quand même montrer l'important taux de résorption de ces abris-là entre 2019 et 2020. Faiblesse des effectifs dans les séries scientifiques. Pour cette année, il n'y a que deux élèves qui sont en série S1. Mais il y a aussi de belles perspectives. Programme de construction d'un LINEC, un lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité. Au terme de ce comité régional de développement, l'adjoint au gouverneur de des affaires administratives, a formulé des recommandations que voici. Une participation inclusif communautaire, de mettre en place un dispositif permettant de faciliter l'inscription des élèves au niveau des concours, au maire d'accompagner les bénévoles et à l'IA de me faire un rapport sur l'ensemble des établissements dont les travaux sont à l'arrêt. Un accompagnement des élèves qui souhaiteraient faire la série S1. Ce CRD est enrichi par la présence d'une large palette d'acteurs du système éducatif et dont les contributions convergent de faire de l'Académie de Sédiou un Sud FM Josette Kali. jaajëfal naa leen ci déglu bi bulletin d'information bi dañu koy dooreek fii ci région bu Ndakaaru ca Thiès ak ca Louga jàpp nañ ni téeméer boo jël fukk ak ñaari yu tombal ñeent yu tombal ñett fukk nag moom ci ay légumes yi ñuy jëfandikoo daanaka salmonelle bi def ci bëre lool mu di ay mbir yoo xamante ni mën na indi ay gàllankoor ci wàllum wér gu yaram loolee moo ruusee ci ab njàngat bu ñu doon amal ñeel jëfandikoo. yooyee salmonelle ci yenn ci ay légumes yoo xamante ni dañ koy jaay ci suñu marché yi tax na ba codex alimentarius ak service d'hygiène di artu euh, jëmle si loolee ñuy jëfandikoo muy min mën a indi nag ay gàllankoor euh, tax na nag ba ñu fas yéene yaatal bu baax a baax euh, saytu gi Marie Rosaline Ndiaye ci ab échantillon boo xam ne toll na ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn am na téeméer ak juróom-ñett yoo xam ne gis nañu ne lii di salmonelle dafa am maanaam buñ ko dee xayma ci téeméeri légumes yi ñu jël fukk ak ñaar yi am na xeetu tooke bi ñu duppee salmonelle ñu gën ko nemmeeku ci xeetu légumes yi nga xam ne kenn du ko togg bu ñu sukkandikoo ci may Maimouna Sowka di ingénieur de génie sanitaire jiite division étude planification ca service national d'hygiène légumes yi mu gën a feeñ mooy persil bi moo ci ëpp liñ fa gis ci doomu jàngoro bi ak salaat ji ak mante bi bi ñuy utiliser pour ataay yooyu ñett daal fa la gën a fees bien que gis nañ ko ci yëpp mais yii moom dafa xaw a jéggi dayo xëy na. étude bi wane na ne bokk na ci li indi yile tooke ñàkkum ceet ca marché yi ak it ci kër yi. salmonelle microbe la bi nga xam ni en général euh, ci biiru nit ki li ci ëpp wala biiru bàyyima bi fa lay jóge donc mën na ànd euh, ci dégestion yi nit ki di def ñu mën ko retrouver un peu partout nag mënuñu résistant ci euh, ci milieu yi ñuy jaay ñuy produire mais ñiy togg ci kër yi tamit ñi koy manipuler bu nu seen loxo dul set ñoom ci seen wàllu bopp bu fekkente ni comme wax nañu ci biir nit ki mën na fa nekk fekkente ni ñoom dem nañu toilette te raxasuñu nu nu war a raxasoo wala ñu laal li nga xam ne mën na contaminer loolu te raxasuñu mën na tax euh, ñu wàll ñam bi keneen lekk ko am ci problème wala yu mel noonu. mu di loo xam ne nag mën na indi yenn jafe-jafe ci wàllu wér yaram looloo tax mu am solo ñuy saytu kaaraange gi am ci ñam yi bu ñu sukkandikoo ci amadu Diouf di professeur ci wàllu toxicologie jiite codex alimentarius. en général famille yooyu mooy indi jëfoo yi day boo xam ne mën na dem ba rey nit ki. xeex bi mooy sell euh, la booy booy booy booy jaay fruits et légumes ñi koy ñi koy ñi koy saxal xam ñoo koy produire dañ ko war a produire si anam bu sell ndox mu ñu utiliser pour di koy do sox mu nekk ndax moo xam ne ndox mu sell la gëstu bi ñu def jëmale ci tooke yi nga xam ne moom la ñu duppee salmonelle te amal ko ci yenn légumes yi ñu ngi ko jëfee ci ab programme boo xam ne waa Luxembourg ñoo ko financé ci lëngoo ak FAO ci lu ñeel Codex Alimentarius fii ci Sénégal doxub ñaxtu la étudiant yu université virtuelle bu nekkee ca Mbour amal tey amal démb nag ci eh, jeudi gi ñoom nag ñuy ñaawlu ni nga xamante ni noone la ñuy jàngee ci seen eno googe di sàkku nag li nga xamante ni lépp ay jumtuwaay la te ñu war di ko jëfandikoo si wàllum njàng mi ñu jox leen ko ci lu mu yàggul dara waaye it boole nañ si ñaawlu li nga xamante ni moo di ay yéexte jëm ci ni ñuy tàmbalee njàng mi ak njàngale mi foofe dàq ñu benn yoon nag amal ay yëngu-yëngal su dee autorité yi gestuwuñu leen eh, ci loolee ñuy sàkku ñu teewlu ki nga xamante ni moo di Michel Malick John eh, di ki yore seen kàddu voilà tey dañu organiser marche bi nii Euh, pour def li nga xamante ni mooy alerter opinion nationale pour ñoom ñu mën a xam ci yan condition la seen ndaw yu nekk UVS nekk di dund ñu dénoncer li nga xamante ni mooy condition yu métti yi nga xamante ni moom la ñu nekk di dund UVS donc ci cadre boobu la ñu organiser marche bi pour alerte mais également pour dénoncer li nga xamante ni moom moo ñu métti donc ñun ñu ngi ci ay démarches ay démarches la ñu nekk je rappelle lii nii jóguñu rek xëy def ko dañ ko def bu ñu nekkee di def ay démarches yu bëri euh, ci autorités yi sans am satisfaction moom moo ñu poussé ñun ñu def lii nii donc maintenant euh, lu ñu compté def bu ñu amul réponse favorable dañu nar a dañu fas yéene tëj ENO yi dañu fas yéene tëj ENO yi mais paralyser système système universitaire UVS parce que lu ñu bëgg mooy ñu résoudre suñu problème le plus rapidement possible loolu la ñu bëgg le système universitaire de l'UVS ñu ngi ci suñu procédure ñun lu ñu bëgg mooy satisfaction te fu ñuy mujje tamit xamuñu ko fu ñuy mujje xamuñu ko mais tant que jotuñu li nga li nga xamante ni moom la ñu bëgg ñu ngi sur le terrain di dox li nga xamante ni moom lañu ñu war a dox. ci mémorandum bi euh, def nañ li nga xamante ni euh, réclamé nañ euh, disponibilité ordinateur yeeg les puces de connexion pour étudiant promotion 8. donc loolu lañ fa bindi pour parce que ñoom aussi bu ñu leen orienté UVS ba léegi. jotuñu seeni i machine jotuñu seen machine jotuñu seen puce de connexion jotuñu aussi seen modem. donc loolu la ñuy réclamer mais aussi ñoom. defaguñu seen seen cours de spécialité commencé wuñu ko. te dañu war a commencé seen cours de spécialité donc loolu lañ fa def te aussi ñu jàppale ñu suñu ENO yi nga xamante ni moom la ñuy tabax yenn depuis 2013 yenn yi depuis 2015 ñu fexe ENO yooyu ñu pare comme ça ñu mën a jàng dans de bonnes conditions. ki doon àddu nag moo di Michel Malick Ndione di porte parole étudiant yu université virtuelle ki tataan ay kàdduwam nag moo di Moustapha Sall. revue annuelle la ñu doon amal ci wàllum njàng mi ñeel programme bi ñu teg nag ngir gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàllum njàng mi ak tàggat nag ndongo yi foofee ca diwaanu Sédhiou waaye ci année académique bi nag jàpp nañ ni résultat yi ñu fa amandi euh, rafetlu nañ ko donte jafe-jafe yaa ngi fa ba tey ñu ngi ko xamle nag ci ab CRD goo xamante ni ci alxames gi lañ ko doon ab amle euh, jëmle si rapport ñeel exercice bu année scolaire euh, bi ñu génn. génn euh, ñu teewlu nag ki nga xamante ni moo di Moussa Dramé euh, ci compte rendu bi. lël bii la ñuy amal ñu duppee kayit revue ci wàllu éducation njàng meeg njàngale mi te kër gi di l' inspection d' académie bu Sédhiou jiite kayit dafa nekk xayma boo xam ne indi nañ ko ci lépp loo xam ne si dafa ñeel doxalinam te it mu nekk weccante xalaat boo xam ne it fas nañ ci soxale wàllu njàng meeg njàngale mi ñu duppee kayit paquet dañ ci teewlu Papa Gorgui Ndiaye nekk l' inspecteur d' académie bu Sédhiou. résultat yi ñu wone am na ci quand ay jéego yu yoo xam ne def nañu ko ci wàllu élargir carte

effective ci lycée yeeg collège yeeg école élémentaire yi effectif ndongo yi nekk ci classe scientifique maanaam s wala s ci candidat yi war a def bac ren ñaari candidat yu def terminal loolu nekk vraiment lu néew lool état du Sénégal dafa bëgg a implanter li ñu tuddee ay LINEC ay lycée d'intégration nationale pour l'équité de la qualité mën leen a motiver les séries scientifiques. bu ñu darkee pellel bile di comité régional de développement l'adjoint gouverneur chargé concours te amuñu possibilité inscrire en ligne ñu mën a inscrire en ligne naa au maire ñu accompagner les bénévoles yi nga xam ñoo nekk au niveau des communes naa IA également mu defal ñu benn rapport sur bii lay di CRD lool ndax it nemmeeku nañ kilifa yu bëri yi yëngu ci wàllu njàng meek njàngale mi te it yoo xam ne moom lañ ci jote yëkkati dafay jëmee ñoogale wàllu njàng meek njàngale mi fii ci diwaan bi naka la ñu war a fexe ba ñëpp xaj ci ndoo dóorandoo te it gënu taaral xarkanam njàng njàngale mi fii ci diwaanu Sédhiou ci biir yu yàgg kook yéen Sédhiou Moussa Dramé pour bu baax a baax Pape Abdoulaye Dieye mi nekkoon ci xarale gi fii lañuy ñuy ndar keppe jotaayu xibaar yu yemamaay yi léegi léegi ma bay leen ngeen woyal déglu seen émission Al ak oustaz Alioune Sall ak Serigne Mbacké